bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina astafa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara yi assamaliya ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene dikkaat ak yéen rek ci seen bind bi ñu leen baaxoo andil ci téere bi tudd irwa un nadim min azbi xubbil xadim mu mel ne kon tey mooy bindub fukk ak ñaareel incha allah ci page cent dix-huit mu ne wa fi hada al ci bile gouverneur azalimi bi aju tooñ yaqulu lay waxee acheikhu sëriñ bi fi qasidatin ci ak qasida murattabatin gudigun toftale min xuruufi masalul jannati allati wucida almuttaquun ilaa qawlihi ba ca waxam ja tilka tilka uqba allazina taqaw nee na ci gouverneur boobu nga xam ne ab tooñkat la ku dëng la ci la sëriñ bi di waxe ci ci moom bayit di xam ne mi ngi ci xasida goo xam ne sëriñ bi daf koo tënke masalul jannati allati wu'ida almuttaquuna tajri min taxtiha lanhaaru ukluha daimun wa zilluha tilka uqba allazina ttaqaw bi mu wa zilluha ja nag ak laam gi ak xalkubeer gi ak gi ca la waxe ne zulmi sama tooñ immaxa far na bi nasri qaahirin bi nasri qaahirin ci ndimbalul yàlla mi aju not kasara koog damm na silaaxa man ngànnaayul ka nga xam kaana nekkoon na yu baax yi di puukarante fan kasarate mu damm sama tooñ far na ci ndimbalul sama borom mi nga xam ne moo ma notal samay noon dammute ngànnaayul waa jooju nga xam ne moo doon jéem a puukarewu ci sama kaw laxoo ñeel ko sukuur yi samay cant wa amaata ta faat na man ka nga xam ne makara fexe na fii jay sosin ci atum jay sos wa mawtuhoo te faatoom nga kat zaada dolli na alfikara xalaat ya maa sama borom moom mi nga xam ne moo faat sama noon boobu nga xam ne moo waroon fexeel ci atum jay sos te mooy 1313 te faatu gam faatu day ku am xel ku nekk dana yokk sa ay xalaat lay sa loxo déet mu koy ñeel siwaa nakaalin dara ak mbugal wa fataratamu doyadi ba'da ijtihaadihi ci ginnaaw ak farloom wa aaqahu daal di koy gàllankoor alfataru doyadi ga nee na euh, maanaam mbugalum sunu borom moo wàcc ci kawam mu doyadu lool te fekk mu nekkoon waaju bari activité eh, nekkoon ku sawar waaye bi bi suñ borom wàccee ah, fayantoom ci moom ak mbugalam mu daal di doyadi lool ñàkk solo lool dégg nga ba mu jaara ci rek faatu xawalahu tiital na ko intiqaamu rabbi ya fayantoog sama borom wa farrata mu daw fil barri ci jéeri ji wal baxri ak géej gi waxaanatu daal di koy wor an nafaru kur maanaam kuréel ba fayantoog sama borom moo ko tiital mu daal di daw dem ci jéeri te mooy xaay googu ma waxoon ci ginnaaw dëkk boobu ba bambara bu jigéen ba jabar ko mu doon maanaam maanaam eh, bokkut ak bokkut ak kooku kii muy wax mooy ki nga xam ne daa demoon fekk sëriñ bi ci géej gi Gabon dellusiwaat eh, ci jéeri ji muy muy muy muy muy muy muy Saint-Louis ñu soog ko yóbbu nag maanaam ci xaay dëkk boobu mu doon wax kenn ki la ah, muy maanaam mu daal di koy daal di koy njabar bambara bu jigéen njabar ko mu daal di faatu moo tax mu naan fayen toog suñu borom moo ko tiital mu daal daw dem ci géej gi dellusiwaat ci jéeri ji ab kuréelam war ko wal wasiru jaraaf ja nag asudaani yu ngay ko nit ku ñuul maaruful ismi ku ñu xam aw tur la wal qabilate ak giir gam bokk walakin waaye daa laa unajjisu duma sobeel xalami sama xalima bi zikrihi ci ab tuddam ka axi ni ka mbokkam ma almutanassiri may aji nasraanu almustahzi kay aji yëjji nee na jaraaf ñuul jooju mu doon tudd ci ginnaaw nee na ku mu xam la aw turam xam na itam famille bi mu waaye nee na du ma sobeel sama xalima ci tudd aw fii naka noonu bokkam mi nga xam ne moom itam daa nasaraanu woon dem mbokk ci nasaraan di di leen liggéeyal xam ne fu mu masata seeg sëñ bi rek da koy yejji ak di ko reetaan ak def yëf moom itam ku xam la waaye jarul may tudd aw turam ba tey wa kullu mawdiin bépp barab laqiya boobu tase na fii ci moom ak cheikh sëriñ yàlla xasibuhuma mooy aji xisaab na Mm, bépp barab bu mu tasee sëñ bi rek nee na da da ko yejji ak di ko reetaan dégg nga ak di ko teg loo xam ne rek aw ñaawteef la lu lu lu lu lu naqari ci ci bakkan la waaye sunu borom moo féete wa ak xisaabam war aytu gis naa maa la nga xam ne kataba bind na ko aseexu sëriñ bi fii kullin ci kenn ku ne min xumaa ci ñoom ñaar nee na itam kenn ku ci ne ci ñoom ñaar la sëñ bi bind ci yow wax ko ci say mbir teg naa ci bët gis naa ko wa axbarani xabaar na ma xayru waaxidin kudul kenn min man e, ca ña nga xam ne fu dana xam ca ka nga xam ne yaarifu dana xam aqibatahuma seenu mucc bi am kulla waaxidin ci naka kenn ku ne minhuma ci ñoom ñaar maata faatu na miitata suu in faatu gu ñaaw ahaduhuma kenn kenn ka ci ñoom ñaar waxoo moom albarri mooy ko mooy ja fi ndakaaru ci ndakaaru wal baxari yu ko géej ka nag fii Conakry nekk na ci Conakry aadana yàlla nu musal allahu yàlla wa tam musal al muslimina jullit ña na maa ca la nga xam ne ubtiliyaa nattoof na leen bi ci moom amin yàlla nga nangu ñaan na lu ëpp kenn xa maanaam xabaar na ma ne maanaam te ñoom ku xam seenu mujj lañ maanaam lu ëpp kenn xabaar na ma ñoom seenu mujj ni ñaawee ñoom ñaar ñooñu muy ñaar ñooñu nga xam ne ñu maanaam ay mbokk lañ te kenn ku ci nekk teg na sëñ bi aw tiis maanaam euh, ñaawal lool jëme ci wàllam kenn ku ci nekk nee na. mujj gu ñaaw la amee faatu gu ñaaw moom maanaam moom la moom la faatu kenn ki nee na ci jéeri ji la faatoo te mooy ndakaaru ki ci des si géej gi la faatoo mu ne yàlla ñu suñu borom musal nag te musal jullit ñëpp ci lu mel ne li nga xam ne moom la moom la nattoo ñaari gaa yooyu le te mooy ñuy jéem a noonu noonu wàllu yàlla yi bala leen cee fekk fekk leen ca rujuun lii ak dellu la ilaa amril xaybati jëm ci mbirum tukki bi wa qaala wax na radiallahu taala anhu nee na wa xaalibu zikri li gën a not ci sama zikar fi zalika al yowmi ci boobali bis mooy inna waliya allahu allazi nazala alkitaaba wa huwa na maa ngi delluwaat ci mbirum tukki bi nga xam ne ci laa nekkoon nee na eh, bis boobu te mooy bis boobu nga xam ne ci la yendoo jeewal maanaam ci la fanaane jeewal eh, nee na bis boobu nga xam ne ci la fanaane jeewal li gën a not ci eh, zikaram zikaram ay tudd yàllaam nee mooy aaya ji nga xam ne mooy wax ne inna waliyallahu lazi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin ci lay waxee naan wa zalika te loolu maanaa xawlihi mooy maanaa mooy maanaam wax waxam ja naan ayasa naaguloona allahu yàlla min ci man inda jeewali fa jeewal iblisa iblis isna tuxu ba ma ko wooyee bi yaawali ci yaawali mm-hmm. sama borom naaguloona iblis ci man ba ma tollee ci jeewal fekk booba maa ngi koy woo naan ko yaa wali yaa wali yaa wali jooju inna waliyallahu lazi nazzala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihiina moom la ci jublu wa baata daal di fanaan a cheikhu sëriñ bi hunaalika foofee wa baada salaati subhi ci ginnaaw julli suba nag irtaxala la laxas ilaa kokki jëm kokki wa kaanata nekkoon na maqiiluhum seen kendal sàmma di foofee wa min zalika almaqiili ca googale kendal sax charaa la doore fi nazmi asmaai ahli badrin ci way asmaau ahli badrin na sëriñ bi daa fanaan ci jeewal euh, ginnaaw ba mu suba nag lafa laxase nag daal di jëm kokki kokki it la yendu kendal googee mu def kokki ca la tàmbali nag di way xasida googu nga xam ne mooy asmaaw ahli badrin xaala wax na ne wa baadama ginnaaw ba nga xamee ne xaaloo yendu nañ maqilan ak kendal daxala tàbbina fii nazmima ci way la nga xam ne uni la joxees na ko bi ci moom maddaxalan bunt mu ne ginnaaw ba mu yendoo kendal googu ca kokki dégg nga ci la dugg nag ci la ci la tàmbali nag way téere bi nga xam ne ci la ko suñu borom wane ci la ko suñu borom ubbile bunt yëpp haadal yowm bi la bis nag yowmul axadi mooy bisub dibéer su martaxala topp mu laxas baada salaatil isha yi ci ginnaaw ju liggéey bi zamanin ci jamono xalilin jude aji néew bi mu fanaanee jeewal ba xëy muy dibéer bisub dibéer mu daal di laxase mu daal di laxase jeewal jëm kokki bi muy àggee kokki it nee na maanaam fa la yendu ci bisub dibéer boobu ginaaw ba mu jullee gee bañ teg ca ab diir nag nee na ca la fa daal di laxase nag daal di wuti Louga xaala wax na lii ñeel ma baadu man lenn ci ña nga xam ne saara dox na ma cheikh ànd ak ànd ak sëriñ bi inda tulooxil xamari fa fenku euh, weer wi laylatal isnayni ci guddi altine laylatal ashrin tamay guddig ñaar fukk min kokki bàyyi koo kokki wa nahnu te nun namshi danañu dox wal mataru te taw bi yarussu dana wis alenaa ci sunu kaw rashan ak wis daifan guy aji doyadi am na ko ma nettali te kooku nee na bi sëriñ bi di dox di maanaam jëm ci tukkeem bi ñoo andoon mu ne bi nga xamee ne weeru wi toll na ci di fenk di feq ci guddik ñaar fukkeel guddik ñaar fukkeel ku ne xam ne ne weer wi day xaw a guddee feq tuuti dinañ julli gee ba teg ci ab diir muy soog a boobu nag lañ bàyyi ko kokki nag rañaan daal dox wuti luga sëriñ bi nee na ñu ngi dox mu ne euh, ki ko nettali ki nettali sëriñ Mudu Lamin moo moo ne ñu ngi dox booba fekk asamaan si mi ngi mi ngi wis as ndox xaala wax na cheikh sëriñ bi radiallahu anhu nee na saraytu rañaan naa tilka laylata googale buddi ala muhrin ci kaw aw mool ashhaba wu jàkkeer lii ñeel ma yu sammaa def na ko tuddee awnallahi awnullahi saabiqin muy aj laa yalxaquhu du ko jot afraasu wukalaayil amiri fasi ndawi buur bi waxum te ñoom yu juxi doona ña ngay sonal anfusahum seen bopp nee na sëriñ bi ci boppam moo wax ne guddi googu dama eh, fanaane rañaan fekk maa ngi war ci fas woo xam ne jàkkeer la ñu di ko wooye awnullahi la fas witu tuddoon mu daan rawe mu doon rawe fas yu fas fasi yi nga xam ne ñoo ñoom la eh, eh, maanaam amiru ndar yabaloon fasiga yooyu nga xam ne ñooy ñooy boobu nga xam ne ñoo jugoon ngir jël si ma mu di leen rawee rawee nu jéggi fekk ñoom ñi ngi farlu bu baax di soññi seeni fas ak di làbbali waaye waaye duñ mën a fexe ba jot ko rubuma yaqulu léeg-léeg mu wax lii ñeel ma waaxidun kenn minhum ci ñoom ne ma yaa cheikhu yow sëriñ bi mahlan ndànkalan ak ndànkal ndànkalal ak ndànkal urfuq ñeewantal binaa ci binafsika ci sa bopp wa binaa ak ci may wax lahum ñeel ko lahum ñeel leen naa leen itoo dikk leen maa baalu mar usin lan mooy mbirum ku ñu ku ñu yilif ursila ko koog yabalees na loxoo ñal ko yatamahalu muy ndànkal fa yaf xamoon na te ñuy wedam nee na léeg kenn ñoom day wax sëriñ bi ne ko defal ndànk te ñeewant sa bopp te ñeewantuñu bu ko defee sëriñ bi ne leen waaxu si leen anak ku kilifaam yónni mu yeexam talu lan ma war a nekk mbiram bu ko defee nee ñu daal di wedam duñ am lenn luñ ci teg wa fi haadihi ci li yaqulu lay waxee nazman way ci lii lay waxee naan warta xalu te laxas minal maqiili bàyyi ko ca kendal ga saa mbir mu ñuy wayri ñaan baadal isha yi ci ginnaaw geega maa dayqin ànd ak xat saabirina mbir mu ñuy way muñ wa wasaloo te ñu àgg xabla sada xabla salaatil fajri njëkk jullik fajar o baata tam fanaan yesri di riñaan mun si daan mbir muy aji saddu way za zajri tey boroomu jaaj ji fas wam yoroon ci lay waxee naan ñi ngi laxas bàyyi ko kokki reñaan ginaaw bu ñu jullee gee ba noppi fekk ñoom seeni dënn mi ngi xat waaye ña nga doon muñ ñi ngi àgg eh, eh, ñi maanaam ngi àgg eh, kokki ñi ngi àgg maanaam kokki ginnaaw boo xamee ne julli nañ fajar ba noppi maanaam njëkk njëkk njëkk ñuy julli fajar njëkk julli fajar maanaam ca lañ maanaam ca lañ àgg mu fanaane riñaan nag fanaane di sadd ay bayit ñaari bayit yoo xam ne moom la moom la moom la ci biir riñaan bi moom la doon moom la doon taqoo di ko jàng boole ci di jàjj aw fasam ak donte mi ngi raw mi ngi raw gaañi rawin wu jéggi dayoo mu daal di rañaane maanaam kokki la la jëm luga Louga Louga la bëgg wax luga la àgg ci njëkk fajar di jot wal man suudu lam doon sadd baytaal bu sayri mooy ñaari bayiti cheikh ahmadul bu sayri bi mu waxee naan wa man takun ku nekk bi rasulillahi ci yonent bi yàlla bi nusratuhu di ndimbalam in talqahu ndeem dana taseeg moom al usdu gaynde ya fii ajaamiha ci seeni gott taji mi kon ñu wedam nee na képp koo xam ne yonent bi salaa salaam maanaam moom nga taxaw temm ci ci ci dimbali ko ci diineem ji boo tase woon ak gaynde ci gott it day daal di wedam ba du la mënal dara ka annahu dafa mel ni ki moom uhuwa tambir moom moom fardun aji wéet la min jalaalatihi ngir màggam nga fii askarin nekk na ci ab xale xiina talqaahu ci waxtu waa waxtu da nga taseeg moom wa fi xashami ak ci ay surga wala ci ci ak ci am mbooloo mu ne yonent bi salaa salaam boo dajeeg moom moom kenn rek muy dox wala moom kenn rek mu toog xëyba gi ko yàlla defal ak waqaar gi dafa mel ne ki dafa toog saxaaba yëpp wër ko ay soldaaram yëpp wër ko ngir xëyba gi nga xam ne moom la ko yàlla defaloon ak waqaar gi nga xam ne moom la ko sunu borom defal yaan dafa jublu ne wa yasjuru tamuy jàjji almuhra al ala sabqihi ànd akuk rawem za zajri jooju muy wax ci bayit bi moom lay firi naan lim ci jublu mooy mi ngi doon jàjji aw fasam di ko dàq ak di ko làbbali donte mi ngi jiitu fasi gaay yi lu baree bari su ma wasal naa topp ñu àgg ila Louga jëm Louga xablal fajri njëkk fajar wakaanata nekkoon na ma maqiidu naa sunu sunu kendal sama foofee ñu àgg Louga bi ñu àgg Louga ba fekk na fajar jotagut foofa itam lañ yendu te Louga lañ yendu mu ne xikaayatun li ab nettal la xiila waxees na ne inna soyxa naka sëriñ bi lamma danaa ba mu jegee min Louga ci Louga xaata ba waxante na ak moom baadu wakala in nasara lenn ci ndaw yi nasaraan bi allazina ña nga xam ne maa waxoo àndoon nañu ak moom ala wacci shafaqati ci anamu ñeewant naan ko ayuha soyxu yow sëriñ bi tasallax na nga ngànnaayu faqad xaara ba jegee na kat al aduwu noon ba fa qaala mu wax la xooñeel ko a soyxu sëriñ bi bi sawtin ci kàddu qawiyin bi aji dëgër ne ko allahu yàlla day laa yajisu du lot wala yataxallaf te du wuute nee na wax nañ ne bi nga xamee ne sëriñ bi jege na luga am na ci ndawi nasaraan bi ci armée boobu nga xam ne ñoo ko jël si woon koo xam ne dafa làbbale aw fasam dàq ba jot sëriñ bi daal di wax ak moom ci anamu ñeewant ne ko sëriñ bi loo man ci muslaay dégg nga na ko daal di génne te fànnoo ko ndax kat jege nga sab noon lool te namut ci yow aw yiw dégg nga sëriñ bi daal di koy tontu ci kàddu gu dëgër ne ko yàlla day wuutewul dara te tëlewul dara falamma wasalu ba ñu àggee wat ma annu tañu dal rajaa daal dellu si zalikal wakilu boobale ndaw fa qaala mu wax ko ne ko ayuha cheikh yow sëriñ bi ana man de qultu waxoon naa la ala wajhi shafaqati ci anamu ñeewant ne la tasallax ngànnaayul faqad qaarab naa jege nañ minal aduwi ca noon ba fa qulta nga wax lii ñeel ma ne ma allahu laa yataxallafu wala yaajis fa maa fahimtu dégguma nag haada lii bi nisbati ci askan ga ilaa qawli jëm sama wax ja fa qaala daal di wax la ñeel ko a cheikh sëriñ bi ne na naam waaw maanaahu maanaam wax jooju mooy anna allaha naka yàlla tabaraka barkeel na wa taala ta mu kawe laa yaxibu du fàddu anhu walis ko sëy un dara maa lu mën a doon azzawaatu jëmm yi wa xayruha ak lu dul jëmm yi mimmaa ca la nga xam ne tadam manat làmboo nañ ko fa huwa moom isan kon xaadirun aji teew la ma ànd ak nun fa isa daafa andeem jañ na an nii walis ma bi qudratihi ci kàttanam ga fala axada déet kenn yaqdiru muy man muy man ci man dara wa in xallaa ndeem bàyyi na baynahum seen diggante wa bayna muraadihim ak diggante seen nammeel fala ahada déet kenn yadfau di jañ wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kaashfa lahu illa huwa wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi bi nga xamee ne àgg nañ Louga ba dal nee ndaw loolu daa ñëwaat ci bi ne ko man kat biñ jegee dëkk bi dama laa waxoon ne la jege nga sam noonu moo tax loo man ci ngànnaayu ak muslu na ko def nga tontu ma ne ma allahu laa yaajisu wala yataxallaf te loolu kat taxut ma dégg ko day mel ne dafa askanoonte wut li ma la wax day loolu du tontoom sëñ bi ne ko axakay loolu li ma ci jubloo wax rek mooy sunu borom tabaraka wa taala maanaam maanaam lépp a ngi teew fi moom fépp ngi teew fi moom ñëpp a ngi teew ci moom jëmm yi ak lu dul jëmm yi liñ làmboo lépp xam na ko kon mi ngi teew ànd ak nun te itam lottul ci dara amul dara lu bu nammee bu ñu nammee défendre suñu digg ak suñuy amul kenn ko mën ci nun dara waaye bu nammee may suñuy noonu lañ bëgg ci nun amul kenn koo xam ne mën nañoo défendre ne ko dama laa jubloo wax rek maanaam aaya ji wax ne wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashfa lahu illa huwa wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi li ma la jubloo wax rek mooy sunu borom bu la nammee laalale lor amul kenn koo xam ne mën naa dindi lor jooju le kudul moom bu la nammee jox aw yiw amul kenn ko mën a delloo yiw wa ak ngëneel loolu kudul moom ne ko ne ko lor rek laa la jubloo wax mu ne allahu alazim wa ballaga mawlaana rasuluhul karim fan sarafa daal di wëlbatiku nag alwakiilu ndaw la mun sarixan mbir muy aji ubbi kub dënn bi mu loolu waa ji waa ji itam daal di xam ne rek loolu mooy dëgg mu daal di dellu daal di toog daal xam li ko sëriñ bi mooy dëgg mu wax naa ne li anna ngir naka sëriñ bi bayyana leeral na la ñeel ko xaalahoo mbiram wa a ak donnam fa nabiyuna sunu yonante bi sallallahu alayhi wa qaala waxoon na ne at tawakkulu wakkirlu ci yàlla xaal mooy sama mbir wala iktisaabu fàggu nag sunnati mooy sama sunna fa man képp koo xam ne daaw fa doya dina an xaali wali sama mbir falaa yadaof bu mu doya di an sunnati an sunnati wali sama sunna nee na li mu jubla wax rek mooy eh, sëriñ bi mu ne Cheikh Mamadou Amin ci bopp wax mu ne man maa ne sëriñ bi dafa leeral waa ji mu donn mbirum yonante bi salaa salaam ak donn gi mu ko donn ci sunnaam ndax yonante bi salaa salaam moo ne woon at tawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati fa man daaw fa an xaali falaa yadaof an sunnati wakkilu ci yàlla mooy sama mbir jàpp ci sabab yi nag mooy sama sunna ku doyadi ba bàyyi fi sama mbir bu mu doyadi ba bàyyi fi sama sunna mu ne kon fa cheikhu sëriñ bi warisa doon na min xaalihi ca mbiram ma sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatihi ak sunnaam sa xazan ab cër waafiran buy aji law wa min xaali ibrahima mu dolli ci mu doon ci mbirum ibrahima xiina ulqiya waxtu waa nga xam ne sànnees na ko fi naare ca sawara wa fa talaba daal di sàkku minhu ci moom almalaikatu malaayika yi an yastaina mu sàkku di mu sàkkoo dimbandikoo bihim ci ñoom faraddahu mu mu delloo leen wa qaala mu wax la ñeel ko jibrilu jibril alayhi salaam ne ko salhu laaj ko fa qaala a ne ilmuhu ak xamam bi xaali ci sama mbir yuux nii dana doy an suali wali sama laaj nee na sëriñ bi kon dafa doon mbirum yonant bi sallallahu alayhi wa sallam doon sunnaam mu doon ci cër bu duum doon itam mbirum Seydina Ibrahima wa waxtu waa xamee ne sànn nañ ko ca sawara wa te malaayika yi ñëw ci moom bëgg ko dimbali tam delloo leen. Seydina Jibril ne ko laajal sa boroom ñaan ko mu musal la ci lor ji mu ne ko xam gëm xam sama mbir doy na ma walis ma di ko ñaan mu ne fa seexu kon sëriñ bi Muhammad yul xuluqi Muhammad la ci jikko Ibrahima yul himmati Ibrahima la ci yitte yaamalu dana jëfe bi xaali nabi ci mbirum yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatihi ak sunnaam sa faqad aayanta jàkkaarloo nga ak amalahu jëfeem nga bi xaalihi ci mbiram fa faxaaka jàppal nag amalahu jëfeem bi sunnatihi ci sunnaam mu ne sëriñ bi day mel ne boo ko xoolee da ngay gis na rek Muhammad la ci jikko waaye Ibrahima la ci yitte nga xam ne mi ngi jëfee mbirum yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di jëfe sunnaam di jëfe sunnaam mu ne nag wan naa la ni nga xamee ne noonu la jëfandikoo mbirum yonante bi te xaalam léegi nag maa ngi lay bëgg wan ni mu jëfandikoo sunnas yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy jàpp ci sabab yi dégg nga ngir sabab loo mucc te mooy te loolu mooy tegginu jaam bu nekk diggam ak boroomam loolu ci lay bëgg ñëw kon xam na mbokk yi incha allahu taala darsu bi dañ koy yemale foofu rek ba beneen yoon ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.